raban bita tagul gugun tapi daba tape rebre gegel gegel gisip kind gisip u ñàkkula lu mu doon ci ñànku nijaayu ñànkula ey sa dubi ay tap tap gegel gegel ges nekkaale la jaaxal nañu. góor gi si kan gi jaamal na neex li nga def. nii de laa def waaw baax na nii daa ngay toogee sa kër. wàcc <laughs> am nga fi. ma dëkk toog benn place dafa tàng. amoo foo dem tàngaay bi waa te programme mënu am. programme lu mu doon da ngaa ñeme programme nag yow. yow toog benn place mënoo ko yow. mënuma ko surtout ma tàngaay. dañ may rey sorti bu neex laa bëgg. yaakaar naa dem sorti yow. man yow ak ñeneen ñi mën a yóbbaale. sorti ba mu xewee kañ la yow kañ nga gëj a gis ni ñuy dugg ay ñaga njaay ak super demi sorti kaw kaw bi nga doon. yow nag yow mu yaay kaw kaw bi yow nee nga doo nekk nag. yaa ngi amoon dama yéeg njëkk njaay ak super ba dem géej xam nga noonu lay de. sotti nga loolu moo saa naam. waaye léegi sotti dafa jamono changé na. changé ak ànd yi nekk fi villa nekk piscine mu nekk nga war a mën a laal sa benn minute bu baax. yow mi yow bu ne yow mi. man de ma dem ci yooyu xam naa sama bopp. jaa nga xam ne di nga dem. ii mais yow fu ma tëggee fu ne di nga fa wecc loolu xam naa ko. ñaari yooyu noonu defar di fa def ay ñaari fan yooyu laa munut maanaam jóge suñu kër def ñaari fan ci àll bi àndoo ki góor dañ la rek dañ may suur bu boobaa daw ma ci yooyu est-ce que xam nga dem ah ba dem <laughs> doom lay baal dara nekku ci boo boo tàngee ba tàng dugg ci duus bi ba set ñëw toog nii nga féex ñaata dugg ci duus baax na ñett yoon dinaa ko def par jour moom waaye léegi boo demee jàkkaarloo piscine bee nga tëdd ne de sa war a de sa deux pièces nga tëdd waroo serviette heure boo nee nii rek daw dugg ci ndox mi génnaat. ah loolu da bakke na nag. ah yaa ngi boo tëju ci néeg ba ki nga ëpp. na mel ni génn Sénégal sa xel may tukki. dem ci beneen réew. dama yaa bëgg. <laughs> damay ñëw. kon di nga def. ah foo ne. fan la ban ko dañuy def. est-ce que duñu daal kii rek buur rek benn yoon daal sagi benn yoon rek xam nga noppag bi day neex kenn du nga déranger. que dëgër fit. ca mbuur la dem. romb tubaab jalaaw yi ne bii. mais Lac Rose noonu la neexee. booy foofu xeet kese day gën a tàng. Hmm. ah kon baax na. jeex naam Azou. ça va ah dama doon nelaw. doon nelaw an an sa briquet bi yow. mi ci kaw coiffeuse bi. yooyu sonn. waaw. lala. jàmm nga ne sa kër. ah waaw waaw léegi ne. waaye kii di eh. wuti ko ba eh, eh. kii mel ni kii waaj a miir. déglu ma kii sama xarit la sama doomu ndey la lépp lu mu lu xam xam wax na ma ko sama xarit lay partagé lépp <laughs> dafa baax xol bu rafet la yow. eh mama jàmm yow ana góor a hmm. baax na. yéen wute muy def ak yu weexam. bul tas sama kër gi kii sama xarit la. tasuma sa kër de yow yi mbedd mi ne kon dëgg. mais kii mu ngi dëkk bi kii muy dox di wañaar yi mel ni ku manqué de rek. da ngaa jàpp ne daa manqué dara gëm naa ne booy ñibbi xam nga bu ngay dox da ngaa ñëw ak forme booy ñibbi da watatu. <laughs> dugal ci asal kii dugal ci moom yedd naal na nga ta. eh yow may ma jàmm de. sa la. muy yéeg. Hmm, ah. doo bàyyi nit ki kii sama xarit la doo ko bàyyi. eh may ma jàmm yow yaa xaritoo ku ne. du yaa ngi ni dem dem ay mbuura la neex def fa ñaari fan. moom a dund lii la a dund. waaw ku nekk ko dundam rek àdduna mu solo. Ah, ngi wàcc. ah. jërëjëf sa dëkk naa duggee nii de. bu lay neex. kii sa xarit la. sama xarit bi ma jàpp may ma. tuuti ba pare teggi. bëgg mu yem ci kuddu ñu ko ci gaye. kër boo fi ñëwee gis fay nit. xamu ne nit nitee ma bëgg nga teey nga réglé te moom mu ngi ne gàññ ak luñ ko war a xas moom mi boole Faba Kotal moom mi kanam gi mën ni ku dëppoo ñesit moom mi ñu war a waxal te kenn waxul ak moom jël sa tànk ettik mu mel ni berma la maabu kër a kër nga ne fa naam dara mais gor ñu baax ñëpp a seen biir kër te di nga jël sa tànk ettik mu mel ni pelim kër gu ne nga dugg fa nag loo fa gis la jënti ko fa koo fa gis wax ak moom nit du jëw sama der wi nag balaa kenn di ka lekk te yor sama làmmiñ bi ma ubbi ko wax ak moom mm-hmm. maa euh, mm. eh. sa xarit la sama xarit moom dinaa wax ak moom man mën naa weranteeg doomu aadama mën naa weranteeg ku ne waaye caga mënu maa weranteeg moom kuy caga yow yow ah d'accord caga nu muy def sama xarit. ngir yàlla. jaaxuloo yow wi ma dama bëgg nga noppi. tere jekk ni nga mës a nekk noppi fi ngeen man nga naan caga. waxatu bu laal soxna si. caga bi day gën ñuy dox naan nii. pare nga. damay saf ordinateur ni suri. Mhm. jeeg maa ko ñaan de ngir yàlla yoon te mi rasulaay. dégg nga lu ko ñaan. déet. làmmiñ mënta lekk morom te ñorul. boo ko may ma rek. wax kañ di ko sorxo sorxoo dañ koy benn bennal. nañ ci dem xaaral ma bëgg nga régler te tey te yem ndax yow xamoo sa bopp. maa te nga juróom-ñaari capital juróom-ñaari raison. këroo kër dem nga fa. góoroo góor war la. saw cotta xat na. sab saas tooy na. say cus ñaaw na. xam nga ne jeeg. caga international mooy jël aw cottam bënn ka jël aw lamiñam bënn ka ngaa nga way samanda yi jeeg man du ma yow sa kanam gi mel ni dawleef nga mën ni ko juddoo Éthiopie sa maquillage ni poob Mali yow mënumaa def ak yow xam lu may wër jeeg ju baax ji maa ngi parce que matiro ngay man ñi matiro yaa góor du dëgër këj ah dëgër këj li nga bëgg doo ko am ci man eh xool ma bu la ci lii rawee rëcc nga. lii yëpp naa la ko. ay eh, noppi noonu da ngaa bëri histoire yow sa ku nekk sa dund moom lii la bëgg a dund doo ko ba man mi ko gis yow est ce que naa laa wax ne kii dëkk na suñu kër. ba tey yaa ma koo sañ a wax. waaw léegi léegi yaa da ngaa xaritoo. kii naa ni ni ni sax du su ci ku nekk sa dund. ah naa waaw day dëgër day dëgër nii. ñaan ko sa waaw. tur ma dool ko. door bëccëg gi ñu xool eh dafa ni yow. bëccëg gi ñuy xool ngay door nangu sa téléphone bi da koy toj de. seen kër ci moo bari ay ah eh kama immatel bi kii moom bokkut ak kenn yow. Ah, boobu léewal kama immatel bi ndox seetaan nga nga ndox. dama doon xool nga rek. moo fi nekk di xeex ay ay ay ay ndox. kañ nga civilisé noonu yow. waaye saa xeexuma. waaw da ngaa da ngaa lus rek. ma mos la. waaw jóge fi koy te cëm ka moo fay di ñoo kan doro. seetaan nga rek. madame ah, Fole Moussa Diarra ñaar <laughs> eh. a allah at at at bent di laatu. waaye xaw ma xamaanuma maa ko doon gis. nga saxoo seen bent di laatu. yow yaay yow yaay seetaan la réagir a am na foo leen dagg. yow yaay seetaan la. bu doon keneen réagir nga bu yàgg. yaay seetaan la. diggante bi yaa quelque chose lii lii am na lu fi xew. ah da ngeen wax Assane yow seetaan nga yow yow yaa indi si yow yaa indi say molo say. say molo yow jokkoo tey man sa jabar. eh ndox mi eh. yow yow eh bul yaakaar ne ma laa lagal de. li ma wax ma ne ma xoolal noo xumul ma naaj daa tàng ma nekkuma fi di xeex. ma lay wax rek. kay. sapet baa ngi noonu di doog a ñëw. xaw daal li nga soxla ma daal dell xaw ma xaw ma ci kër gi. xaw ma xaw ma ndax daal dell ma wax ma nga jël ay suba du ma ko xool du ma xool suuf. asama du sem molom dégg nga asama du sem molom yow asam du sem molom. ba ngay woo sa clique gi ngeen ñëw lee ñëw fii di wax ak asam. yow laay wax ak kii yëpp yéen ñaar ñëpp laay waxal. dégg nga damay wax koo xamante ni wér na. loolu mature na yow da ngaa immature defal nañu bàyyi sama baalam bi mm. fa laa foo neex laa ko dugal. kan dem eh, nañu kër gi mënoo xuloo ñoom nan dem. bàyyi ko sa damay leen. ñëw damay waaw. man nga koo ragal naka de. du ma kii du ma kee du ma keneen. nokk ko ndax ma am benn jour. bu ma waxee sànq nokk dama xaa nokk ba mu lay nokk da ngaa yàqal. loolu ko yow romb ma fan. jokkoo day dem taxaw. <laughs> waaw xanaa yoroon newul ci kër gi yow. jël nañ dem seen kër gi ci boppam. góor nga ne góor nga. Masata sa xalaatane. wuy sama ndey. ñii di dox naa nii. dugg sax ay immature ah taxaw. ak ba mu neexul fii fekk fii naa ko passé. dugg fii laay taxaw léegi. waaye bu dugg si biir neexul de. dama si dugg dama am na loo si si alors. ma yaakaar di nga génn. ma yaakaar di nga génn. kante bu topp kii. seen kër gi ci boppam bari ay immature. waaw dama bëgg de. di naxasaal di njoosaal di dugaale ci biir néeg yi ñii imbécile lañ nag ñii ko ko bàyyi woon tële sama anaconda bi doom la. tey ngeen dee tey ngeen dee naa góor ñu ñëw bu ñëwee day tojol yoro bu ñëwee day tojol yoro